dafa sëkk ñëpp jàmm El Hadj Keita bu xewlee di ngeen gis artistes yu Sénégal yëpp ñi ngi kontaan bu baax a baax ci sa teewaay parce que boo ñëwalee El Hadj ñëwal nga Tarba Mbaye ñëwal nga artistes yëpp ndax ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi te lii dafa rafet ñun rek ñoo war a sunu biir. ñoo mën a dikkalante suñu biir macha allah def nga lu rafet ñëw wuy si sa frère woyal ko ba mu neex te loolu rek moo la war di ci kontaan bu baax a baax a baax tey xew bi xewu artiste la fiche technique bi man maa ko yore damay ubbi morceau rek balance ko artistes yi ñëw ku ne di def tey man duma sax woy parce que xew bi taxawee ma taxawee ma fi woykat ndax man maa xewle ndax sama xarit moo xewle damay ràmbal rek. su ma daajee morso daaj artiste yëpp ñëw Samba Diarra ngi fi borom Pikine borom waa koñ bi El am na solo Siri loo ci bëgg wax El Hadj am dama am contentement bu mag buuru El Hadj Faye tey ku xool bis bi ni mu demee xam ne tey lu rafet rek rafet artiste yëpp ndaje nañ fii El Hadj Keita maa ngi lay ñaanal yàlla xale bii ñi ngente tey yàlla nga dund ba mu lay fajal say aajo yàlla nga dund ba mu lay yóbbu makkan yàlla nga dund ba mu tabaxal kër tabaxal na kër tey artistes yëpp ngi fi tarba maa ngi nii taxaw waaye tamit nga def lu rafet buur artistes yëpp ñëw sa orchestre bi ci ginnaaw maa ngi leen di nuyu ñëpp ñëw nga yaatal ñëpp sabe la ngi noonu di dem moom moo jeew ci yoon bi di ñëw Mandiaye Seck Bambaleeg Waaleeg Pape Diouf ñëpp a ngi ñëw tarba maa ngi lay ñaanal yal na yàlla defal la jàmm yàlla wéral baat bi waaye nag dafa am loo xam ne tarba ma koy di sànq ba tey te El Hadj il faut ma kalaame la ko mu arrêté takkal jabar takkal jabar takkal jabar takkal jabar ma ne ko sa biir bu nga mu ne ma jina jinaar yi la dañ may toppatoo man ku ma ci waxal mu ne ma takkal jabar comme que maa ci def nag bientôt incha allah bu jëloon maa ngi ñaanal yàlla El yàlla defal ko jàmm jabaram ji jabar ju baax la li ma ko wax rek tarba bi mu toogee ba tey kenn diggu ko ci dara barki Serigne Bamba kenn diggu ko ci dara yal na yàlla musal leen ci seytaane ngeen dund bay gis seen sët sët sëtaan El Hadj sama frère nga Tarba Baye sama frère nga bu lépp passé ñun ñëw bokk ndey ñoo bokk bàyyi boo xoolee bis bi ni mu demee nga xam ne lépp rafet na sa xol bi ku ci ibbi daf ci fekk Sidi te barki maam Cheikh Fall da ngaa ne sama xol Tarba Mbaye mii boo ibbee xolam nag ma fi fekk bu show biir jotee nag dañuy show biir def ay affaire mais bu lépp passé ñun ñoo bokk nday ñoo bokk baay ñun ñett ñi ñëpp taxaw nag bokk lu ñu mënul seddoo muy Serigne Touba maa a a baax képp ci koo xam ne kii na jëf wala mu defee lu la neexoon rek maa ngi lay jëloonati Talla Diazaka maa ngi ko fiy gis sama frère jege sil fils jege sil nga ñëw da ngaa mën a way doomu ndaanaan nga jege sil nga ñëw way Talla Diazaka dañoo wëy ah